salaamaaleykum mbokk internet yi nga xam ne yéen a ñuy bàyyi xel ci seen site bu am solo bi di seneinfo point net eh, itam seen chaîne YouTube bi di seneinfo international ak suñu différentes plateformes yu fasantikoo yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon di rafetlu seen eh, teewlu bi ngeen ñuy def tey nag dañoo fas yéene amal ab plateau spécial boo xam ne dañ koy jagleel eh, ki fi bàyyeekoo di imam Alioune Badara Ndao ci waxtaan boobu nag ñu fas yéene ko amal ki nga xam ne moom mooy euh, Mouhamed Sakho moom mooy directeur bu Islamic euh, Cultural Foundation of America ICFA nekk fële ca New York euh, imam la nekk professeur moom mooy itam nag président directeur général bu seen groupe d'information bii di Seneinfo xanaa da nga nuyu imam maa ngi lay nuyu te gannaaw bu ma la it damay ci toftal rek sama laaj bu njëkk muy ana nan nga accueillir nouvelle génn àdduna imam Alioune Badara Ndao waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu alxaaji Ndofène maa ngi fay nuyu di nuyu staff bi nga ànd ak yëpp ci liggéey bu rafet bi Seneinfo International di ñaan sama borom boole ñu defaral suñu laaxir ak suñu baatin waaye pour répondre sa question muy euh, dellu ci boromu imaam Alioune Badara Ndao mm-hmm. xam maa ko recevoir ni ko jullit bu nekk recevoir de manière général waaye ñu recevoir ko nag façon bu euh, métti de manière particulière ndax fi mu toll woon ci ñun mm-hmm. euh, Imam Alioune Badara euh, Ndao dem gi bett na ñi nga xam ne xëy na jegewuñu woon euh, nit ki waaye bu ñu déggee témoignage yi da ngay yëg ne euh, li ko yóbbu gannaaw dogalub yàlla feebar la boo xam ne xaw na yàgg ci moom yàlla ak njàmbaaram ak baña tawatam ak bañ sonnal njaboot ak bañ ku jaaxle moo tax sax xëy na dayo biñ ko waroon a jox moom joxut ko feebar bi mm-hmm. ba bi muy toll Euh, fi muy toll euh, metti na ngir it bi nga xam ne moom la bàyyi ginnaaw ndax xam nga ne lépp lu ñuy wut ci ab imam bu dee xam-xam mate woon na ko duwul ne ku ñëw imaam nga def fekk am nga xam-xam waaye bi mu matee xam-xamu li ñuy doye baab imaam ci biir wala ci fiqhul islaami ci wàllu ibaadaat yi daf ko matale ci wàllu muamalaat yi te hmm. fiqhu ci wàllu muamalaat yi daf la poussé nga xam li ñuy tuddee la géopolitique internationale daf ko xamoon lool waaye xam ñaar yooyu bari nañu ko def te engagement bi nga xam ne yàlla mayoon na ko courage mu def ko nit dana xam lim xam ba pare te du ko ñeme hmm. moom nag yàlla boole loon na ci moom xam gi waaye am fitu am engagement bi ba pare engagé wu euh, kooku nag bu fi jógee euh, dafay nekk lu métti ndax euh, deewu boroom xam-xam moo gën a métti deewu junne jaamukatu yàlla ndax ki jaamu te fekk xamut ci boppam rek la ne mën naa am sax jaamu ga du demee na mu war a demee waaye ki xam nag am na ay junne junne yi nit yuy euh, ci moom waaye alhamdulillah gannaaw ku baax dee ku bon dee moom baax na ba dee euh, liñ xam ci moom yàlla bu suñu yaakaar tas nitu yàlla que mu ne almawtu laa yadurru man qad saida bal huwa raxatun liman qad rachada dee du lor ku nama texe noflaay la sax ci ku jub te itamit at yi nga xam ne moom la soppe bi sallallahu alayhi wa sallam dund at yooyu ku ko dund boo gàttee fan it fan ndégam yaa ci lim ne woon te seede yi ñu am yëpp mooy ci li yonentu ne woon la nekkoon jàng jàngale sonn lool ci njàngam sonn lool ci jàngale waaye sonn lool ci liggéey ak sonn lool ci jëriñ jaam ñi wax nañ ne ba ci hôpital bi sax ñi mu nekkal daf leen di wax ne bu leen lekk fekk médecin yi nekkuñu ak yéen lekk ak yéen xaalis bu mu yoree mu ngi ko doon séddale foofu hmm. kon kooku baax na ba dee xam nga yonentu sallallahu alayhi wa sallam ñu bëri si ñun dañuy wax soixante trois ans la dund waaye loolu ci ati weer wi la ko dund mais boo xoolee ci ati jant bi yonentu sallallahu alayhi wa sallam mi ngi judd le vingt avril cinq cent soixante dix ñi ne cinq cent soixante onze jógee fi le six juin six cent vingt deux six cent trente Mm-hmm. donc kon soixante deux ans wala soixante et un ans et mooy li imaam daw kon dund muy soixante euh, gënoon a dund mu gën a baax ndax njëriñam waaye gannaaw yàlla moom moo dogal dañuy delloo lépp ci yàlla xam ne ñu it ni ko fi jëlee xamuñ ndax minute bi ñuy jubli nii dañuy fekkam déet li suñu wareef rek mooy jéem a baaxal ni mu doon baaxalee ñaan yàlla lépp lum baaxle mu nangul ko ko te fulal ko ko yërëm ko te jéggal ko bépp rëcc rëcc may ko aljanna te wuutu ko ci jabootam ci barke yonentu sallallahu alayhi wa sallam macha allah solo eh, ana tey boo doon def ay seede eh, ci imam Ndao li moom hmm. eh, ana yan lu muy waaw bi ci njëkk rek mooy liñ ko doon doyee am na compétence yooyu yooya laaj wax naa la ne duul ne kuñ ne ilimaan la rek nga xam lim xam tey jii daa dem ci jàkk yu bari ñiy xëccoo jiite jàkk ja am na ci leneen luñ newoon dem ba àdduna soxlaatu leen ñu ñëw di xëccoo jàkk moom nag wax nañ ne bi muy xaleel bu tuuti ci juróom benni atam la ko bàyyam yóbbu bu jàngi ca kokki ci lu rombut ñetti at yàlla may ko mu mokkal boo déggee parcours bi ñu wax ne moom la defit ci wut xam-xam diggante Jurbel diggante biir réew mi ruqi ruqaat yu bari ci biir réew mi ca kawlax biir Saalum ak euh, ci biti réew mi Mauritanie ba ci euh, arabi Saoudite euh, nga xam ne kon sonn na lool ci xam te mag ñi nga dégg yëpp nag ñu leen di naw balaa ñoo am liñ am dañoo nangu woon a jàng dañoo nangu woon a xam imaam Malik mi nga xam ne lu ëpp ci réew mi ci ngiram lañ nekk mhm. wax nañ ne bës dajj na ak téegam téeg mooy li ngay li tiim néeg bi nii daj waa plafond wu néeg bi bant yi nga xam ne ñoom lañ ko defee mu dajj ko jaay leen ngir am lu mu dundee ak lu mu yóbbaloo ci sàkku ki muy sàkku xam-xam imaam Shu'batu nee na ñeenti weer mi ngi koy wër di vérifier benn xadis ndax xadis yi yonantu sallallahu alayhi wa sallam ko waxam déet mooy xadis boobu nga xam ne mi ngi ci saxihu muslim di wax ci wàllu uh, ngëneelu kiy jàpp ba pare wax shahada yàlla ni mu koy ubbilee juróom-ñetti bunti aljanna naka noonu ku mel ni imam Buxaari yi nga xam ne tey foo ko déggee yëpp ne ëskay wax nañ ne daan na yeewu lu mat ñaar fukki yoon ci nelawam ngir rek am na lu ñëw ci xaatiram mu war ko bind uh, fu nekkit mu dugg fa di waru xam-xam di ko sàkku kon moom gëstu googu euh, lañ ko xamee ci la nekkoon maanaam gannaaw buñ ko yóbboo ñi ko war a yóbbu ñu jàngal ko mooy war nañ ko ak jàngale war nañ ko ak njàng li ci des nag góor góor góorgóorlu boppam la ak tawféexu ak yàlla loolu nag ñun ñëpp la war waaye bari na ci ñun ñoo xam ne bu dee ci njàngum diina wala ci meneen njàng mi foog nañ ne la ñuy def ci l'école ba rek mooy jàng te école du jàngal kenn école daf lay wan méthode bi ngay jàng suñ benn kilifa daf daan décrire université mu ne aljaamiatu madrasatun tadxuluha jahilan wa tawaadian wa tataxarraju minha jahilan mutakabira mu ne université école la boo xam ne yaa ngi ciy dugg en tant que ignorant mais bu humble parce que xam nga ne xamuloo mm-hmm. mu ne booy gradué booy génn nag ñu yox la diplôme tu es toujours ignorant mais ignorant avec arrogance pourquoi parce que jox nañ la këyit gu lay wan ne yow ingénieur nga en tel et tel te fekk yow leer na la li wax ne am nga ci ingénieur yi amuloo ko ci parce que bu fekkee ne man dama nekk ingénieur ingénieur en mécanique par exemple mhm. ñu indil ma benn problème mécanique ma dem Google di ko set xam nga ne dañ may nax kon moo tax sama kilifa ga boo ko indilaan diplôme mu ne la shahadatu jour shahadatu jour mu ne seede yi mbóosóor la seede yi mbóosóor la maanaam seede yi caaxaan la parce que ki def ñeenti at di jàng xadis mokk loolu dul junnee xadis ñu wax jox la diplôme bi wane ne borom xam-xam nga ci xadis dañ lay nax at mu nekk nga mokkal ñaar téeméeri xadis ak juróom fukk te imam Buxaari rek buur téereem bi set mille et quelque xadis nekk ci imam euh, euh, Ibn Hajar al Asqalaani wax na ne xadis yi wér buñ leen boolee yëpp dafay dellu ci quatre mille quatre cent xadis waaye nga fekk nag ni yu bëri dañ leen répété nooy xamee yooyu ba pare ñu lay woowee mu xadis nga koy mu ne waaye nag mën ngaa def seede gi seede dëkk mooy mën ngaa foo déggee téere nga wuti foo déggee borom xam-xam nga seeti foo déggee baxtu nga wut foo déggee lu ñuy xam nga wuti ko defe naa ne Imaam Ndaw ci loolu la gëstu ba bàyyam dugalul ko école française te su ko làkkee nga foog ne loolu la jàng am na ku ne ma ni mu mokkalee Alquran noonu la mokkalee tafsiru Alquran ci francais dégg naa limaan bu ko bu ko loolu noonu la mokkale tafsir bi waxuma mën koo jàng ci en français mais mokkal baat yi français yi te loolu ak gëstu la noonu it la gëstoo li nga xam ne mooy xew ci àdduna bi mm-hmm. ci wàllu géopolotique ba nga xam ne bépp parti ak bépp philosophie wala bépp euh, pensée yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi di doxal noonu la leen maîtriser ndax euh, ki nga war a janool soo xamut la mu ngànnaayoo doo mën a janoog moom mm-hmm. depuis yàlla créé sayidna adam ak sayidatna hawa depuis mu créé iblis booba la mbon ak mbaax war a nekk ci guerre ci xeex bu éternel ku nekk nag am bagage yoo war a àndal pour gagner guerre boobu mhm. bagage yooyu nag ba ci ëpp mooy bagage xam-xam imam Ghazali nee na al amalu bila ilmin la yakun mu ni jëf ci lislaam tudd jëf fekk xam-xam jiitu ko waaye wal ilmu bila amalin min al junun waaye xam-xam nag su jëf ak ndof la ak ndof la kon moom xam-xam bi mu ngi fi kaar alhamdulilah waaye dafa yóbbalee xam-xam bi nag jëf mais yóbbalee xam-xam bi jëf joo xam ne moo gën a am solo ci jëf mooy jëf yi jikko c'est-à-dire que nit ki da nga koy gis ci humilité nit ki da koy gis ci ubbeekum ouverture am nit ki da koy gis ci esprit fédérateur bi mu amoon parce que Sénégal li ko yàq mooy kii tijaan la ki murit la ki ibaadu la kii nangam la mhm. nga gis ne moom mi ngi sosoo ci euh, way jur yoo xam ne ni ci tariqa lañ nekk moom it mu ñëw euh, nanguwul dog bum jokkoo googu foo ko gisee mi ngi ànd ak ñooñ tariqa mi ngi ànd ak ñi nga xam ne amuñu tariqa mi ngi ànd ñëpp waaye di ko def nag ci anam bu rafet parce que am tariqa du farata dégg nga ñàkk a nekk ci tariqa it du farata bu fekkee ni yow jàng nga ba dégg diine ba xam li ñu bokk te mooy li gën a am solo muy ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yeneen masail ijtihaadiyaat yi warul tax warul tax ñuy tojante bopp ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku def ijtihaad boo amee résultat ba nga war a am mu ne am nga ñaari yoon yoolu farlu ga ak yoolu am résultat bu baax mu ne waaye soo juumee am nga yoolu farlu hmm. soo juumee am nga yoolu farlu te nag boo xoolee masail yi ñuy tojante bopp di ci saagawante di ci waxante lu ñaaw yëpp ci bari masala yoo xam ne la masala ijtihaadiya la yoo xam ne nassu euh, wàccut ci euh, loolu nag bu fekkee ne mi ngi ci suñ biir ñu am noon yoo xam ne lislaam mooy seen noon ña nga taxaw fa di dugal euh, dégg naa ci imaam ndaw bés sax muy wax léeg-léeg nga gis benn borom sikkim bu rëy taxaw di wane ne salafiste la di saaga ñi nekk ci tarixa te fekk dañ koy fay salaire rek du sax jullit te yooyu infiltration yooyu mi ngi ci suñu biir moom nag yàlla defoon mu teel a goreel fànn googu ba di ci dimbale ay ndaw yu baree baree bari ba mën na am natt yu bari yu ko dal ci àdduna ci yoon woowu la ko dalee te loolu nag du gàcc yonentu sallallahu alayhi wa dafa ne ki gën a tar nattu ci nit ñi ñooy yonentu yi yonent ñoo gën a tarnatu ci nit ñi mm-hmm. topp ñu topp ci ñoom topp ñu topp ci ñoom maanaam ñu topp ñoom ci mbaax summal amsalu fal amsalu góor gi Moussa Ka mu ne nettoo di kerkaraanu lawliyaa yi ku weddi laajal xayru lan bi ay kon nag euh, alhamdulillah nattu bi mooy jeex ñun ñu fi bàyyi ci lay métti ak cause yi nga xam ne moom la doon ànd ñun di ko xeex mm-hmm. waaye moom mi fi jógee yaakaaral nañ ne yaakaaral nañ ko ne ko tey mi ngi ci jàmm mi ngi ci mi ngi ci noflaay te tàqaliku dëgg-dëgg nag du tàqaliku dee euh, waxkat ba mu ne laysa alfiraaqu firaaqa almawti wassafari inna alfiraaqa la fil jinaani aw saqari mu ne tàqalikoo du tàqalikoo dee mbaa tukki mu ne tàqalikoo dëgg-dëgg mooy ñu àndoon ci àdduna yowmal qiyaamati ñëw kii dem aljana kër dem safara yal nañu yàlla boole macha allah am na solo euh, mënuñu wax ci dundu imam euh, Alioune Badara Ndao te waxuñ ci mbirum procès terrorisme affaire terrorisme boobu nga xam ne ji ñeen nañ ko fi ba sax teg ko ci kaso euh, tey ana loolu ban ban ban jàngat nga si am ban gis-gis ban taxawaay nga si am waaw jàngat yu bëri yuñ mën a wax ci kaw ak yuñ mën ka wax ci kaw benn bi mooy li ma wax sànq jiital ko moo di boo gisee ñu mel ni imaam ndaw di déranger mooy ñi ñu mën a leeralal dañoo bari parce que bëri na koo xam ne euh, mi ngi sol mbubu diina simplement parce que baayam nitu diina la woon li sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yal yàlla yërëm ko daan wax ne doomu sëriñ li muy sotti duy bari ne doomu sëriñ pour mu sotti nee na du yombul xam nga lu tax parce que ki nga xam ne yow da juddu ci yaa ñu gën yaa ñu gën baay yaa ñu gën yaa ñu gën maam bu ñëwee fekk sa baay toog ñu jox ko ñaari loxo ak ñaari junne yow ñu jox la ñaari loxo ak ñaari téeméer nga yaru ci yaa gën nit ñi mu ne kooku bu màggee boo jàppee nit nga amal affaire amuloo am affaire ak nit te loolu nag mag ñu bari ci réew mi dañ daan bañ loolu moo tax seen seen i doom daanuñ yaroo ci seen keppaar mag ñi ko ci gis ci ñoom dañ daan yóbbu seen doom mu yaroo feneen ñu jàngale leen feneen lu tax dañ daan bañ eh, jàngoro jooju seen Xaj Maalik moo sëñ Babacar Si ne ko dee fi géej géej mu ne ko daara ji eh, paxiwel la paxiwel booy soog a eh, gas wel moo fa maanaam wel buy soog a gas paxam moom ak njabootam ñoo fa dëkk su demee nag ba jamono dikk jaana ko fay fekk ñàngoor dàq ko dëkk fa nga ñëw di rëbb foog ne wel nga jàpp soo dugalee sa loxo jaan matt la mu ni daara ji noonu la mel sooy samp sooy soog a samp daara ñu bëgg xam-xam ñu bëgg mbaax rek ñooy ñëw waaye su yàggee nag am yeneen ñu ñëw bokk si looloo tax mu daan sëñ sëñ Babacar Defi Guèye soo ma nammee nga bind ma suma la nammee ma woolu la loolu noonu loolu ngay gis ci kër yëpp yu bari mag ñi daan jël seen doom di leen Eh, di leen di di leen làq ak di leen rawale mm. Mm. alors loolu nag yàlla moom eh, mën nañu wax ne musal na ko ci moom musal na ko ci ñu bari ñu mel ni eh, moom alors bi non seulement mucc na ci waaye mi ngi fexe it njaboot yi mucc ci nga gis njàngaleem sëñ Abbas Sall daf daan wax ne nit ñi del yee leen nit ñi parce que li ñu leen di wax yëpp daanaka mos nañ ko dégg dafa am njàngale nga xam ne yenentu nee na yàlla nee na mais tekkil ko nit ñi li lii Sidi Ahmed Tijani radiyallahu anhu daan wax ne bi seyri zamanika sir na nga dox sa doxinu jamono na nga dox sa doxinu jamono maanaam fexeel ba yee euh, nit ñi loolu tax nga gis mag ñi daan wolofal yu bëri pour éveiller conscience yi alors euh, comme nag ñu ngi nekk ci euh, adduna boo xam ne dafa am ñu taxaw ne ñoom ñoo koy yilif ñi ñoo koy doxal dem nañ ba déclarer deewuk yàlla Euh, dem nañ ba après ñaari guerre euh, euh, tribal yi laa koy tuddee yu européenne yi ñu tuddee guerre mondiale nga xam ne du guerre lu dul ay intérêt européen dem biñ jeexee ñu def li ñuy tuddee tey Nations Unies def seen charte boobu de droit de l'homme mhm. de nit ñi dañoo dañoo nit ñi dañ leen dégg dañ leen créer ñu yem te wax jooju xam nga waxu yonantu la sallallahu alayhi wa wax jooju waxu yàlla la wax jooju waxu Seydina Omar la waxuñ ne yàlla moo leen dañ ne dañ leen créé ñu yem ñu dindi yàlla teg na le dégg nga ils sont les la maanaam ils sont créés égaux mm-hmm. alors kon yàlla euh, ki leen créer moom na nangootuñ ko tudd dégg nga dem sax ba ne sont nés égaux maanaam création sax ñu ngi koy bëgg a dàq voilà ñooñu nag buñ demee ba war a yilif àdduna bépp doole ju taxaw pour mën a nekk lu leen koy teree dañuy wut ay forme ak façon yuñ koy xeexee hmm. te doole ju leen mën a teree loolu nag ci kaw adduna tey doole diine la te amul benn diine joo xam ne diine ju wér la ju nekk ca nañ ko wàccee woon judul diine yi yàlla ji di diine lislaam donte yonent yëpp sax lislaam lañ doon woote ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam alquran jim ñu indil wax nañu ne eh, yonentu yëpp ci lislaam lañ nekkoon boo tuddee nuux yàlla ne wa umirtu an akuna minal muslimin kon nuux ci lislaam la boo tuddee Moussa mu ne fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina wakkilu leen ci yàlla su fekkee ay muslim ngeen kon yonentu yàlla Moussa ci lislaam la ne woon boo tuddee Suleymaan mu ne innahu min Suleymaana wa innahu bismillahi arrahmani arrahim allaa taalu alayya waatuni muslimina kon Suleymaan ci lislaam la ne woon boo tuddee Ibrahima mi nga xam ne mooy bàyyi jullit yi sama borom ne ba ko waxee aslim qaala aslamtu li rabbil alamin dégg nga moom Ibrahima sax fa doon ñaan moog doomam ji Ismaayila ne leen yàlla def ñu ay jullit wajaal naa muslimayni lak Yuusufa it ne yàlla tawafani musliman ray ma ci lislaam hmm. yonent yàlla di dénk doomam yi lu ngeen di jaamu sama gannaaw ñu ne ko duñ jaamu lu dul sa yàlla mi la moom moom sa bàyyi ba ca mujj ga ñu ne ko wa nahnu lahu muslimun ma taabudoon min baadi qaalu naabudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ilahan waxidan wa lahu muslimun yonent yàlla isa ci surat ali imran yàlla ne fa lamma axasa isa minhum alkufra qaala man ansaariya ila allahi qaala alxawaariyuuna nahnu ansaaru allahi amanna billahi washhad bi anna muslimun seede ne ñun ci lislaam lañ nekk kon isa yonent yu ko jiitu woon yëpp ci lislaam lañ nekk li daan wutee kay mooy atte yi atte yi ñëw léeg-léeg am lu dagan fii jamono ñëw mu mujj mel nii am loo xam ne société sàngam nangu na ko jamono ñëw société soos su nangoo ba l'islam ñëw nag mu mel ni enseignement primaire secondaire l'islam moom ñëw nekk enseignement supérieur lu njàng kaw a kawe du passé enseignement supérieur moo tax yàlla def ko muy diine ju mëtale di diinay ñëpp di diinay fépp di diinay faw waaye maanaam l'islam ci forme bi mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa nga xam ne it moom rek moo garde monothéisme dëgg-dëgg tawxid dëgg-dëgg ci lislaam la nekk yahudiyatu gi ñuy wax tey amatul tawxid lu ne lu ne lañ ca dugal lu du tawxid euh, dem nañ ba isa mi ko indi woon sax di di di nitu ñu def ko yàlla far mook ndeyam wala def ko yàlla mook saint euh, saint esprit kon nag benn doole lañ xam ne moo leen mën a teree am liñ bëgg mooy lislaam ndax teyit lislaam ni mu nekkee diine ci biir noonu la lekkee diine ci biti mooy ni muy toppatooyee la ngay def ca jàkka ja mm-hmm. noonu lay toppatooyee li ngay def ci pénc mi li ñuy wax naan nañu jox César li César moom jox yàlla li yàlla moom l'islam moom dafa jàpp ne lim moom yëpp yàlla moom donc l'islam dafa nekk diine ibada ak diine muamala léegi nag ki nga xam ne nii nag ñëw na pour yàq il faut que mu am ay pexe yu mu yàqee diine jooju comme mënta yàq diine jooju nag mu fexe bay yàq ñooñ diine ji dañuy nettali xaw ma dëggalaan déet E, ne ne e, mos na seeti pape bi mu ne ko yow bi ñu la joxe Sénégal ba léegi christianisé wu mu ne ko mais je peux pas mais de peux faire de mauvais musulmans dégg te loolu nit ki boo dundee ci moom jikko rek dindi nga ci moom l'islam boo dundee ci moom jikko dindi nga ci moom chrétien bu baax boo dundee ci moom jikko dindi nga ci moom juif bu baax ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na ad diinu xusnul xuluq diine mooy rafet jikko léegi nag jëm nañ lu nekk fi ñu njëkkee amuk réussite ku ñu foog ne réussite la mooy bi ñu daanelee empire ottoman mhm. ci siècle bi bu weesu waaye gis nga matul téeméeri at loolu Turquie ñëwaat na amaat doole eh, ju jege eh, doole jooju wala joo xam ne am nañ ci yaakaar mhm. dégg nga fexe yi tamit ba dëkki jullit yi ñu tàqale bu njëkk da nga daan dégg Hijaz Yemen Cham tey boo demee dëkki arab yi ñaar fukki dëkk ak nangam ñu dagg daggee pour tàqal la li ñuy wax farriq te sut mm. fii ñu nekk nii muy Sénégal ak Mali ak Mauritanie yii yëpp benn dëkk la woon mm. ñu ñëw tàqale ñu gis nga bi ñu amee sax suñu soi-disant indépendance amoon na euh, li ñuy tuddee fédération di Mali mais continue wut léegi tamit ñi nga xam ne nag taxaw nañu am fitu jàkkaarlook ñoom ñooñu soit nañ leen diaboliser te leen tuddee leen ay terroristes su fekkee ne amuñu fa ñu ñu mën a tuddee terroriste ñu créer ñun suñuy terroriste tey jii boo xoolee li xew 9/11 ci amerique mm. gëstukat yu bëri gis nañ ne que ñi ko def ci biir Amérique la. Euh, ben Laden mi ñu ko tuumaan moom ci boppam sax nee na suuf sañoon sax def ko waaye du moom moo ko def ndax xam nañu relation yi ñoom avant te bi ñu waxee ne rey nañ ko ci suñu néew ci suñu nàngam suñu nangam ñu toog rek Amérique ay def ay fenn dal ci kaw Irak bi ñu toogee. gis ne lañ doon wax ne Irak am na ko ci arme de destruction massive amuñu ko sa Saddam ñu rayal ñu ko ba su tabaski muy muy saaga bu rëy ci mu mel ni xarum tabaski alors lan lañ ñu xëy rek génne benn waaye bu tudda ba Aboubacar al-Baghdadi koo xam ne nañ étudiant la woon ñoo ko ñoo ko jàpp dugal ko ci seen camp yooyu xaw ma ñoo ko formé xaw ma naan xëy rek moom moo war a jiite li ñuy tuddee état xam ne euh, ci turu état islamique mu war a nekk di terroriser nit ñi ba ñu xëy aussi Trump bi mu bëggee électorat comme ni ko Obama defee woon 2011 ci Ben Laden mu ne rey na ko ba léegi moom it ci suñu dara ci moom noonu nga déggee tamit fan yële ak Biden ñu ne rey nañ ay man ba waaxit yi jee dégg nga euh, li xew France euh, fii ci Mali nga ñëpp ñëpp gis nañ bi nga xamee ne France ñëw na ne dafa dimbale Mali euh, toog nañ fi lu jege fukki at Mali ñetti téeméeri dëkk yi ñu wax ne la terroriste yi jëloon dem na ba ëpp fukki junneeg nangam yaa ngi dégg walla léegi nag ci ñeenti weer bi bi français yi demee presque nanguwaat nañ leen hmm. alors loolu noo koy déggee dem nañ aussi ba xam ne français yi ñoo leen doon defal ay tunnel ñoo leen doon nangam bal ñoo leen fi sax indi ñoom ñooy créer seen i problème seen i propre groupe dégg nga jox ko turu l'islam dégg nga baatu terrorisme muy fen woo xam ne mooy baat bi nga xam ne amul firi ba léegi parce que dañuy saay-saay euh, euh, mooy jël benn baat rek jox ko ci maanaam lu ko neex mm-hmm. bu ko defee ñun tamit sax ñu ji topp dem nañ ba tey suñu journaliste yi di wax jihadiste yi alors que musiba bu gën a rëy la amul parce que jihad dafa nekk farata ci l'islam mm-hmm. mais lañ mooy jihad il faut que ñu ne jihadiste fekk ñu ngi ci jublu terroriste ñun ñëpp ay nitu jihaat lañ booy jàng di góorgóorlu yaa ngi jihaat booy jàngale yaa ngi jihaat booy góor ci sa jaamu yàlla yaa ngi jihaat buñ la naree ray dégg nga nga défendre sa bopp yaa ngi ci jihaat bu ñu naree jël sa alal nga défendre sa bopp yaa ngi ci jihaat buñ la maree massacre ak sa diina nga défendre sa bopp yaa ngi ci jihaat waaye dem nañu tey ba ñoom ñoo ñuy wutal ay vocabulaire ñoo ñuy wutal ay terminologie ñoo ñuy wutal ay nànk léegi nag yooyu yëguñu ko yëguñu ko léegi nag ku mel noonu bu bu ku mel ni Imam Ndao comprendre yooyu suñ ko jisee muy jàngale yooyu te état yi lekk nañu xaalisu Occident pour combattre li ñu tuddee terrorisme il faut que they have to find a terrorist or create one maanaam il faut qu'ils trouvent benn terroriste wala groupe terroriste buñ ko trouvé wul ñu créé niñ koy defee ñun ci suñu jàkka yi da ngay toog ci suñu jàkka yi ñu yónnee la benn ay boo xam ne wolof la ni yow di làkk wolof di nàngam nekkte dafa ñëw pour infiltrer jàkka te wax nañ ne am na soldat wala xaw ma policier bu infiltrer woon même euh, mbooloo mi maam ndaw mi ci ja ci daaraam ñun dañuy nekk dañuy toog di def xutba di nangam mu leer ñu ne am na ñu fi nekk ñoo xam ne bokk ñu fi mais on s'en hmm. am na koo xam ne xam naa ko doomam ñu ko tëj depuis lu ëpp fukki at ak nangam te wax nañ ne peine bi war na ëpp 30 te defu dara koo xam ne ni ci FBI la bokk rek moo ñëw infiltré leen di leen wax loolu ñuy discuter mu mel ni ñu toog nii di discuter ay ci yooyu lañ jàppee nit kooku perdre na jabaram perdre na doomam papa mi ngi mel ni tof pourquoi parce que dañoo agenda il faut que bés bu set ñu trouver dara contre l'islam te terrorisme boobu ñuy wax état bi ñu ko gënoon na incarné ak ñu ko créé ci àdduna muy li ñu tuddee kamikaze yi mm-hmm. Europe lañ nekkoon ñi ñuy tuddee tey Israël tey lan lañ daan def biir Angleterre bi ñu bëggee créer seen dëkk dañ daan dem di bombarder ay ay ay ay ay hôtel ay nangam ñooñu tey ñoo mujj ñu jox leen ay prix Nobel de la paix te ñoom lañ daan tuddee ay terroristes dégg nga ak ñi tuddee seen bopp ay chrétiens ci armée boobu euh, foofu ci Europe hmm. waaye tey baat bi kole nañ ko euh, l'islam léegi nag suñu état yi su fekkee lekk nañu xaalis il faut que ñu won tubaab yi ne leen am nañ ay terroristes yu leen jàppal d'ailleurs ñu ngi def ñu nga xëy benn bés fekk jàmburu yàlla bu deful dara bu ñëpp xam ci mbaax bu ñëpp xam ci jub nga dal ci këram dégg nga loolu traumatisme boobu rek mën na rey nit nga jël ko ñaari at yàlla ak juróom-ñetti weer nga téye ko mu nekk fa nekkin bu métti boo xam ne mu ngi nettali moom ci boppam ne am na benn néeg buñ ko dugaloon odeur bi mënu fexe ba noyyi mu ne bi muy woo pour mu wax ak ñoom nanguñu yegsi sax parce que bëgguñu nooy odeur bi muy wax aussi foo xam ne dugaloon nañ ko ci gendarmerie bi ak sonore yoo xam ne mënul fexe ba nelaw donc yooyu mooy yi nga xam ne moom la xam mën naa am sax am na yeneen yu ñu ko def yu ñu xamut xaw ma yaa ngi seetaan am na benn film bu les vautours ah les vautours am na euh, formule bu ñuy fa faatee nit ki nga xam ne dafay feebara petit à kan moo xam lan lañ ko def yàlla rek moo xam donc moo tax man bi ñu kiiwee man li ma njëkk a wax mooy nañ wan il faut qu'il y ait une autopsie mm-hmm. mais indépendante du question ne ñun ay complotiste lañu wala ay nangam déedéet dañoo bëgg xam lan moo xew parce que kii détenu politique la kii dañ ko jàppoon ci lu dul yoon kii dañ ko tooñ te moom ci boppam wax na ay traitement yu ñu ko defal yoo yu ñu ko def yoo xam ne jaaduwut mm-hmm. ay mbokkam wax ko ah. te bu njëkk bu yàggu rek lañ fiy wax waxu François Makabu du noonu la tudd ah waaw mankaabu kenn xamu nan la dee alors yooyu il faut que mu mu mu mu mu mu mu hmm. te foog naa ne nitu diine yi am na benn nitu benn kilifa bu feeñ ci téléphone yi ne nitu diine yi dañoo seetaan li ñu war a wax waxuñ ko wala li ñu war a def defuñu ko mu mel dañ koo tiital mu gënaat di jéggalu mais li mu wax mooy dëkk nitu diine yi ñooy suñuy kilifa ñooy suñuy sang ñooy suñuy lépp mais nag taxawaay bi des na c'est ça la vérité hmm. dafa am loo xam ne bu fekk am na taxawaay bo xam ne bu amoon mbiru makabu du ma euh, mbiru imam ndaw du du du yegg fii. bàyyi xel bu baax xel waaw mbiru imam ndaw. Mm-hmm. du du du du yegg temps biñ ko téye doo nañ ko ko doo ko ko am na koo xam ne buñ ko téye woon mu bokk fenn fi du fi am temps bu fa am temps mm-hmm. surtout bu fekkee deful dara. Mm-hmm. te kii deful dara waxuma la deful dara waaye dafa defal Sénégal dara. soo mu génn nag def ba ca gën a rafet mooy bi yonentu sallallahu alayhi wasallam waxoon dégg nga dangay topp ñi mu ne dee topp ma leen dara sëriñ bi loolu mooy loolu mooy ak càng loolu mooy ak càng kon nag euh, nit la koo xam ne euh, li yonentu waxoon ne ad diinu xusnul xuluq diine mooy rafet jikko rafet jikko googu lañ gis ci moom malgré li nga xam ne xam nga ki nekk ci biir nattu ne baale na baalewut baalewut sidna Ali nee na baale dëgg-dëgg alafu mu ne indal maqdura mooy bi nga mënee fayu waaw koo xam ne mënoon nga constituer dossier fayu donte sax euh, ci fa muy demit daanaka ñoo ñi la tëjoon rek ñoo yem waaye ci ci waaye defuloo ko hmm. parce que peut-être yow xam nga ne am na borom buy xool te mi gis am na borom buy xool te mi gis fii nag yëf yi mën naa yem fii rek ñu mës mësal waaye am na beneen àttekat bu nekk ci suñ kanam hmm. te ku nekk ci ñun war naa bàyyi xel ne e, si e, sëriñ bi dafa jëli ab tibam rek ci jàllu dee waaye ñun ñëpp suñ bosan ñuy xaar mm-hmm. muy njiitu réew muy kilifa diine muy man muy yow muy keneen te xamuñ kan la kat al mawtu baabun wa kullu nnaasi daaxiluhu yaa layta shi'riya ba'da al baabi maddaar alaaj ibrahima yi ñes radiallahu dafay wax ne nit ñi moom luñ dof dof doo fekk doo dem mukk gis ko dem ci sëriñ naan ko ñaanal ma bu ma dee ba dem ci doctor bi ne ko defal ma xam ne du dee maanaam yàlla liñ koy liñ koy weddil yëpp moom dee ma bokk ci hmm. ñëpp xam ne dañuy dee hmm. mu ne nag te eh, lu bëri sabab rek dafay bari lu muy am mu tudd ne wërsëg dafa bari sabab moo tax kii dafay amee ci lii ki amee ci lii ki amee moo tax wërsëg bëri bunti njéggal dafa bari sabab moo tax ñu yaakaar yàlla jéggalee ñu njéggal bëri mu ne dee yi dafa bëri sabab doo dañ di dégg nit dee na nit dee na ba nga dee bés boo xëyee tàggawuñ la rek xamal la yaw lañ tàggee tàggawuñ la kenn rek xamal la yow lañ tàggee comme loolu mi ngi ñuy xaar nag nañu jéem ñun ñi nga xam ne ñu ngi woote woo jullit ñu gën a suute woo li gën a métti ci yëf yi mooy ñi ngay dégg ñu daan tooñ yëpp dañ lay wax ne ay ay ay wala ay nangam ñoo leen di tooñ mais kii ay ñuy tuddee seen bopp jullit ñoo ko tooñ ci réew mi ñoo xam ne dañuy wax ne ñu ci ëpp ñi fi ëpp ay jullit lañ c'est ça qui est grave c'est ça qui est déplorable moo tax euh, li ñu war a jànge ci jóge imam daw bi jóge na fi mënatuñ koo indi mm-hmm. waaye gën a suudewu gën a xam enjeu yi nga xam ne ñoo nekk ci suñu wet te xam ne yi tamit kenn du dee te seede da jotut mm-hmm. ñun tolloon nañ jamono yoo xam ne bu ñuy def ba ci Amérique dégg nga da ngay gis am ñuy taxaw ci buntu jumaa ji ndax wóoluwuñ surtout jamonoy Trump ñi nga xam ne ay ay ay naka lañ koy waxee ay extrémiste la la ñuy ñuy dañuy woote white supremacy mën nañoo dugg ci jàkk ji def lu leen neex. ok mais on sa man dama leen wax ne man moi je m'en fous bés <laughs> bu ma waree dee damay dee bés bu ma watul dee du ma dee. loolu nag moom xamoon na ko alhamdulilah yàlla bu yaakaar tas ci moom ñu nit yàlla nañ ci jàngee ba gën a suudewu ba gën a euh, euh, am esprit fédérateur boobu surtout esprit fédérateur hmm. ñu xam ne li ñoo tuddee ay tariqa ay wurmbal la mag bu nekk am wurmbalam bu moo deferee njabootam pour bu njabootam génnee ci penc mi baax mais man mënumaa toog di nettali samay sëriñ ni mu meloon ak sëriñ bali sëriñ yële ni ñu meloon ak sëriñ yële ba pare ñu man taalibe bi moo mën a def noonu taalibe kookee loolu mooy rek ba léegi dégg bu ñu dégg ñu diine diine ji benn kilifa la mooy yonent bi sallallahu alayhi yi des yëpp ay liggéeykatam lañ ci des yëpp nag ay liggéeykatam lañ buñ ko xamee noonu ku gis rek nañ xool ci moom yonent bi sallallahu na eh, solo jaajëfal bu baax a baax eh, ñu ngi jaajëfal itam nga xam ne kon eh, ñoo ngi doon bàyyi xel suñu plateforme yu fasantikoo yi xanaa rek di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax te di ñaan eh, liñ fi waxtaan yëpp yal na doon ay yiw ñaani itam yal na ko yàlla nangul imam Alioune Badara Ndao mi nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo xar ko aljana yu gën a kawe yi di leen jox dig daje kon incha allah àndu yàggul dara rek ak beneen invité mm-hmm. ci beneen tam jaa